بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وخديمه وامته وسلم تسليما الحمد لله المنعم المفرد بالايجاد وبالنعمه الايمان بايمانهم اي بهذه السعادة مالا سيدنا محمد الذي يسعد من نبى دعوته ويكون من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين الطريق الطريق لمن جاء بعدهم من الدين أو في أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة والله جل النصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين والمؤمنون صلوا على أهل صلاة النبي التي فرضها عليكم دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرض لهلاك مضيعها ومن قام بها على سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم لا سيما هذه الصلوات الخمس التي تدعون لها فهموها اكبر من اخواتها وكلمتها لان مقامها في العبادات مقام الراس في اعضاء الله تفرغ لها القلوب محل نظر الرب وتطهر لها الثياب والاشياء تفوز بالقبول والقرب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اقوى وفي الحديث بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم وأكد شيخنا أحمد الخليل رضي الله تعالى عنه له الأول والباقي الكريم الأول والآخر والباقي الكريم فرضية الصلاة ومكانتها خطيرة في دين الإسلام قائلا قد صح أن الصلوات الخمسة فريضة حكما وكلت الأبصار قد صح أن الصلوات الخمسة فريضة حكما وكلت الأبصار بذكر والسنة والإجماع ومن يكن منها عن امتناع يحدث لها فهو كالمتقي فالحكم يستتاب ديما عنه فإن يترك وإن لم يتم وإن لم يتم نقتله تصعد بسبب فقط إلى آخر ما قال في آخر هذا ويدخل فيكم المرأة من حرمانها ومن حرمانه من الغسل والكفن والصلاة عليه ودفنه في المسلمين استبقى الكبيرة به وغير ذلك من حقوق المسلمين وقال معلم ان اكثر الطاعات ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci ak santam di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Serigne Modou Mamoun Mbacké bi fi nekk di nuyu ñëpp nag di nuyu Mbàkke ak Musoobe di nuyu kilifa diine yi di nuyu xarit yi di nuyu am di jàmm yi di nuyu dëkkandoo yi di nuyu mbokk yi ak suñu famille bi nga xam ne ni moo fi teew ndax képp ku nekk fondation 221 sa famille teew na fi tey di nuyu nag waa quartier bi ñu nekk muy jàmmu gën man nag maa fi teewal fondation 221 di jël kàddu ci turu fondation comme waxtu wi dafa jege kàddu yi tey du nekk lenn lu dul ay kàddu cant ak ay kàddu ngërëm bi ci njëkk mooy diggante fondation 221 ak ci kilifa gi tedd gi toog muy sëriñ Modou Mamoune ah, Balla fondation deux cent amul sa fay Mbacke la fondation deux cent vingt et dañ lay ñaanal fanu gudd ak wér-gu-yaram ndax dañ ñoo taxaw dañ ñoo jàppale dañ ñoo suturaal dañ ñoo ñaanal Mbacké Balla fondation 221 lépp lu muy def ci Sénégal yaa cay njëkk yaa ci mujj te yaa ngi ciy ñaanal te lépp li ñuy ñaanal wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax te ñu ngi ci am yokkute bu baax a baax ndax ba ñuy démarrer melutoon nii waaye gannaaw yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Mbacké saa buñ tourné rek dañ lay gis bàyyi woo ñu benn yoon bañ koy tijji. ñaan yaa ngi ci ñaanoon lépp a ngi nii tijji nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin Mbàkke président Moussa Niang mi nga xam ne mooy président fondation 221 mi ngi lay beral ay kàddu cant ak ay kàddu ngërëm président Moussa mi ngi lay beral ay kàddu cant ak ay kàddu ngërëm yóbbante na ma ne ma sëriñ Mbàkke boo demee ci mbooloo mi seereel ma samay kàddu cant ak samay kàddu ngërëm ci sëriñ Modou Mamoune sëriñ Fallou nga xam ne mooy sama lépp ndax mënuma koo fay kon Mbàkke ci kàddu suñu président Moussa mu ngi lay sant ak fondation bi yëpp ci taxawaay bi ah beneen bi nga xam ne nii moom moo ci am mooy complex Ahmadul Xadim bii ndax complexe Ahmadul Xaddim bii dafa am fu mu jógee ba yegg si fii loolu nag dafay baax mbooloo mi xam ko mooy suñu kilifa di suñu maam di lépp ci ñun muy suñu maam Sooda ajaral Sooda seen mii nga xam ne moom moo wax léegi moom moo fi defoon daara ji pàkk bii ab pàkkam la woon mu defoon fi daara yéene ko ci waajuram bu góor Mamor Anta Seen daara ji bi mu ko fi defee ci xayma ci diggante ñeenti at lay tollool boobu ba tey daara jaa ngi fi nekk boobu dara nekk fi woon daara ji rek moo fi nekkoon jamono di dox jamono di dox dama jamono di dox ba mu yëg ne kat jàmm gën gii ñu nekk ah mbokki jullit yii fi nekk tey yittewoo nañ juma ñu gis ko suñu président Moussa Niang président fondation 221 ñu taxaw ci loolu moo waral lii kon dafay baax bu mbooloo mi teewee ñu xam mbir mi fu mu jógee mbir mi ci suñu maam Sora seen la jógee kon maam booy li nga doon mbébét ci sa waajur wu góor woowu di ko mbébét ci njaboot di ko mbébét ci jullit yi suñu borom sottal na ko kon ñu ngi lay sant di la gërëm. loolu mënul woon ñàkk ñu wax ko complexe bi nag fondation 221 ci suñu njiit suñu président Moussa ñaar daf ci am mbébét mu rëy ndax complexe la ñu wax te ndax complexe dafa am lu muy làmboo dafa am lu muy àndal daara jii fi nekk tey bëgg nañ ñu moderniser ko bëgg nañ ay boroomi xam-xam di fi jógee bëgg nañ ñu fi jàng sax ay informatique di fi wàcce kaamil nga xam ne képp ku fi génnee rek da am xam-xam da mën a nekk benn actif de la société maanaam koo xam ne nii bu génnee dafay mën a jëriñ société bi tey loolu lañ ci namm te sëñ bi ñaan na ko fi suñu maam ñaan na ko fi te gëm naa ne lépp luñ fi namm bu soobee yàlla ak sëriñ Touba ak jëmm ju tedd gi yàlla dina ko matale ba ñu ba ñu def lépp jëmm ji nga xam ne nag mooy Moussa Niang Euh, dañ koy sant di ko gërëm ndax li tax ñu koy sant di ko gërëm dafa nekk ndaw nekk sénégalais waaye nekk taalibe murit yaakaaram lépp di sëriñ Mourou Mamou sëñ Fallou li ko suñ borom baaxal mënoon na koo def feneen waaye ci lu baax rek la ko xiir kon Moussa yaakaar naa ne sénégalais yépp rawatina ay mbokkam ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal taxawaayam yàgg parce que njëriñ la ci askan wi ndax lu baax rek lay def beneen bi nga xam ne nii moo ci des Moussa daf ma yónnee woon ay kàddu cant ak ay kàddu ngërëm ci ay mbokki daaraam ndax Moussa sëriñ Mourou Mamoun mi mooy léppam ci ay mbokki daaram ki nga xam ne moo nekk ca booba mooy sëriñ Mourou Mamoun Bousso ndax Moussa nee na mbokki daaram yooyu nga xam ne dafa bokk ñoom sëriñ Touba bokk ñoom sëriñ Mourou Mamoun mu sëñ Fallou bàyyiwuñ ko benn yoon lépp lu mu nekk rek ña ca ak moom di ko jàppale guddi di ko jàppale bëccëg ba ci Malicounda jumaa jañ fa doon tëji dañoo bàyyi seen lépp def seeni daayira nekk ci liggéey bi jàppale ko ci baas yi jàppale ko ci sees yi jàppale ko ci xasida yi bàyyi wuñ ko benn yoon kon Moussa Serigne Mourou Mamoun Bousso Moussa nee na taxaw bi ngeen ko taxaw gis na lépp xam na lépp yëg na lépp te mi ngi koy seeral sëriñ bi di leen bàyyee ak sëriñ Tuubaa yéen xam li ngeen bëgg te mi ngi ñaanit lépp yiw buñ fi am fii képp ku fi teew yàlla nañ ko bokk barki Seydina Muhammad barki sëriñ Tuubaa barki sëriñ moom dama moom sëriñ Fallu bu loolu wéyee it comme kàddu gi dafa euh, waxtu bi dafa jege si mënuñoo gërëm mënuñoo wax ba jóge fi te santuñu timu fondation 221 bépp parce que suñu maam wax na ko fondation du Moussa rek wala du Serigne Mbacke Madina rek. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ziare xam naa incha allah kàddu yu kàddu yu te bu àggsee rek bu defee ñu ngi siyaare ñëpp rek loolu rek jigéen mag ak ndaw di siyaare yi teg yi ñu fi àndal Cheikh ji ak imaam yi ak loolu suñu moom sëñ Moussa Niane di nuyu ñi fi teew ñëpp rek bëgg nekk di lim tax waxtu yi fa gàtt ñi teew ñëpp ñëpp maa ngi gis si suñu Cheikh Baba Ndaw itam sànq muy ñëw ak ma sëñ ak mbokk yi tedd ma àndal kon ñu leen di tatagal te ñu seen teew leen di ñu teew ñëpp rek nag ndax bi ak ziyaare suñu mbokk ba sëñ Gédé kon ndaw ko ndaw yu bëri bi ñu amoon terrain yu nii dañu station service dañ ko def waaye def ko luy fonctionnaire yi koy appartement luy leen yàlla loolu liggéey bu rëy la daf ko jàng eh, daara daf koy jàngale daf ko def jumaa loolu liggéey bu rëy rëy waaye ñu ko ñu ndax moo teg njabootam ci yoon woowu ndax Moussa def sëtam lépp ci moom jabootu si bopp bi toog benn ak moom am na loo xam ne bu leen ko waroon loolu la ñuy xam am na yoon boo xam ne bu leen ci waaye mu teg leen ci yoon bëgg lu baax liggéeyal yàlla sant sant mbokk yi teew yëpp lu baax rek lu ñu leen woon lu dul lii am na ci ñoo xam naa fi ñoo xam naa fi bari ñoo xam ne kenn mënu leen woo ci leneen lu dul lu mel ni doo leen gis malgré tàngoor bi xataa yu dëkk bi ak yitte yu bari yi ñu bàyyi loolu lépp ñëw loolu presque des bi nga xam ne ñoo mën tax li ñuy wax kàddu yi tasaaroo di jàll ci biir réew mi ak ci biti seen liggéey liggéey bu réer liggéey bu baax dañ leen ci yëpp rek organe privé yi ngeen mën nekk bi yëpp rek ñu leen sant ngeen gërëm day ñaan eh, teew bi rek wax teew alhamdulilah rabbil alamin lañu wax ndax teew fi ci koor gi tegoon xeer wa ñu yàlla baaxee ñu teewaat ay mois yu ay waar ay weer yu néew ñu koy ubbi ko dañ ci sant yàlla baax a baax di sant soxna si nga xam ne moo teg waa këram ci di sant sëñ Moussa itam ndax ñu bare bari ñu toll ci at yim toll am possibilité yi mu am ñu bari bu doon ñoom leneen la ñuy xalaat ñu ngi xalaat investissement ñu ngi xalaat ay ñu ngi xalaat leneen sa alal di jël say partenaires leen orienté ci yoonu yàlla doo ko bëgg lu baax waaye nag yëpp dañ koy sant waajuram yi ndax moo leen ñoo ko orienté ci wax gën ko buñ ko orienté woon ñu ñu ko rek teewal indi fi at yii yàlla na ko yàlla saafara bu fi indi woon lay ragal yàlla na ko yàlla dàqal li ñu waroon tàmbali nag njëkk ko mooy nuyu leen siyaar leen tur Cheikh Mountakha ndax mooy borom jaxaay bi ndax mooy sëriñ mooy sëriñ Touba te ñun taalibe sëriñ Touba lañ kon li ñuy def lépp moom lañ koy defal li ñu ciy wax moom lañ koy waxal li ñuy def moom lañ koy defal moom mooy moom jotaay bi mooy jiite jotaay bi dañ ko fay nekkal rek te ñun ñu fi nekk yëpp ku ne mën na ko fay nekkal ndax suñu Mountakha jabootu moo jaboote ñëpp moo jaboote jullit yëpp ma dégg nag seen bande annonce bi lu am solo loo xam dama caa dégg ne ngoon gi dañu fi def xadratu juma xam ne ne juma ji juma yàlla la ñu jàngal sëñ sëñ sëñ Usmaan bi ñu ne ko sax wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada kon jumaay tijaan amul jumaay murid amul jumaay xaadir amul yàlla dari nag day am adresse foog am ñu ko taxaw ñu koy gérer ñu ko encadrer waaye yàlla ko wa anna al masajida lillahi allahi ahada loolu mooy taaru Sénégal loolu mooy force Sénégal alxuraan bi jàng benn alxuraan bee te bu ñu alxuraan murid ak alxuraan tijaan ak alxuraan ibaado alxuraan layer amul allahu akbar benn allahu akbar bi la fatiha bi jàng benn fatiha bi kon kon kaaba gi ñu jublu genn kaaba gi menn yàlla bi lay ñaan def ko tegu sunu men benn benn yonent bi wa sallam kon bu ñu ji jumaa yàlla ñëpp ci bopp ci sant bi am na gën a na lool lu ñëw gën gën a gën a gën a gën a yokk daal di bu demee ci biir si Moussa du ñàkk lu mu ci yokk bu ko defee ñu daal xam ne daal yéen a ji na ndax yéen waxu leen da ngeen a jëf ndax déplacé wu ci tàggooru métti bi ñëw fi ngir yàlla loolu wéyëf loolu ko def ku nekk rek eh, ndax wala wala fi dañuy wax ne tànk ngeen baal ma ci wax ne ko tax a yëkkati na ñor na ko nag nag te ko ñu bari ci yéen ku am na jumaa joo mënoon jullee waaye la tax nga bàyyi ko nag fii jox cër bis bi la jox cër barab bi la a wane sa bégte sa contentement ci li ñu def dana yàlla fay yëpp rek dana yàlla fay aajo yëpp dana ñu tax a yàgg yëpp ñu ñu ngi sant baax a baax ba fondation 221 yow ak soxna Seydou ñëpp rek di sant donga daara yi ni ma ko wax ñu doon jàng alxuraan mooy lépp jàng ji doon yëkkati xasida yi di sant noppi rek bu defee ba noppi léegi luñ ci a yokk ñu yokkaat akhiru